gannaaw ba ñu nee euh, xalifa bu mag muy Seydi Ahmadou Tidiane Ibrahima ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam may ko wér di ñaanal imaamul akbar ak mboolem njabootu Maolana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass yu jigéen ñu ngi nuyu comme nañu koy waxee al imaamul akbar Seydi wa Maolay Cheikh Ahmadou ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam te may ko wér tey di tax ñu ñëw ñu def ci interview bi ñu ngi am mbégte ak kontaante bu mag a mag a mag ci ñëw gi dajeek euh, al imaamul akbar imaam ñu ngi lay ñaanal yàlla dañoo yàgg di bébét di bëgg daje ak yow waykat bi waxoon na mu allilati bil wasli wal na dunahu isa mittu zamanan fala nazara qadru waxtu bu nekk ñu ngi mbébét pour daje ak imaam ndax li ñuy yëngatu dañ koy yëngatoon ngir pays bi ñu ngi ñaan yàlla tamit sa ñaan nga ñaan ñu yàlla li ñu nekk di ci yëngatu pour pays bi fu ñu mënta nekk ci àddina bi di ci jariñ parce que nit amin yaa rabbi amin nit ku nekk choisir na def lu ne waaye ñun ay ndaw la ñun choisir jël suñu ndaw yëpp jox ko Mawlaana Cheikh Ibrahima te borom moom ku ko jox amul sikk na dana la fay ñu jugee ci imaam euh, ci bis yu màgg-màgg gannaaw ba ñu jugee ci euh, ziyaara dugub jugee ci ziyaara xaalis ñu ñëw ci mawlidi nabi bi gàmmu gu mag ak gàmmoog ñaareel taalibe Baay yëpp kontaan macha allah ñu gis yow tamit appel yu mag yoo xam ne defoon nga ko ci euh, imaam gannaaw bañ jugee ci événement yu mag yooyu ban lancé nga ciy def ci taalibe ak kontaante gu ñu am ci mawlidi nabi bi alhamdulilah الذي بنعمته تتم الصالحات وتتكاثر الخيرات والبركات وتتوارد المعارف والفيوضات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدد الكائنات وخاتم الرسالات على آله وصحابته وعلى التابعين وتابعهم بإحسان في جميع التطورات ورضي الله عن شيخنا أم الدين أبي العباس شيخ أحمد بن محمد بن تجاني حاتم الولاية المحمدية وعن خليفته ووارث سره وجهره مولانا أبي إسحاق شيخ إبراهيم بن حاج عبد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام maa ngi leen di nuyu di nuyu képp koo nuyoo bu sell muy nuyoo lislaam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am kontaan itam pour tase ak yéen tey ci bis bi fii ci Dakar di sant yàlla ba nga xamee ne jotaay bii ñu toog dara waralu ko lu yàlla ak yonent am Cheikh Tidiane ak Cheikh Ibrahima ndax da tudd ziyaara mais mooy xew yi ñu jógee nga njëkk a tudd ziyaara muy ñaari ziyaara yi yépp nga xam ne bu ci nekk dañ koo def rek ngir mbëggeel ak kóllëre ci suñu digganteeg sëriñ bu mag bi mu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu li mu wax ci benn band ne su fekkee ne mbëggeel jëmm la ziyaara mooy roxo gi nga xam ne moo koy dundal sëriñ si ñëw ko oyofal sax waaye Cheikh Ahmad Tidiane yi ci jamonoom maytoon benn taalibe mu amul moom ñetti fan ci Fass te demul ziyaara ji ko waaye nag bay bam mu mum dafa dox ni jamono di doxé yombalal nit ñi lepp ba nga xamné ne képp ku am ngant rek nangul na la sa ngant té suy ñaanal ñi ñëw dana la ñaanalaal ndax buy ñaan waxtu nekk da nga dégg mu né képp ku ñëw ak ku namoon a ñëw man ta ñëw manam ñëpp lay bolé rek ñaanal leen yalla mom nag mom lañu jaglee lon ñaari ziyara yoy muy ziyara dugub bi ak ziyara bu mag bi man dama ne duma wax ziyara khalis ndax lolu dafa xaw a suufee man ziyaara bu mag bi laay wax ndax dañ ko ziyaara si rek ngir yàlla te yaakaar ci moom lu ëpp xaalis itam yaakaar ci moom àddina ak alaxira yaakaar ci moom lépp loo xam ne yàlla dana ko may góor ci dundi àddina bi wala mu koy may góor wala nit rek ku mën a doon ëllëg ci alaxira taalibe yi uy si lool uy si oote boobu nga xam ne woo nañ leen ko pour ñëw ziyaara si Mawlana Cheikh Ibrahima dañ leen a fàttali rek te fàttewuñ ndax ku ci nekk bu waxtu wi jotee rek xamal nga sa bopp ne aada bii nga xam ne dafa nekkoon suñ diggante ak sëriñ bi jot na nañ ko waajal di laaj ci leetar yi ñii di laaj ci ndax waxaguñ bis bi ñii di laaj ci ndax jàppaguñ ko kon lépp dañ ko fàttali rek yàlla defal leen tawféer ñu ñëw matal ko ca la nga xam ne moo gën a rafet moo tax ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla fayanteeg ñoom te jotal leen seen bëgg-bëgg jotal leen seen càkkutéef barke bi nekk ziyaara itam ñu ngi ñaan yàlla mu jox ko kenn ku nekk ci taalibe yi ñëw ak ñu am ngant itam ñu ñëw ñëw am na leen yàlla boole barke boobu ndax barke boobu mën naa éwénal àddina mën naa éwénal alaaxira ndax ziyaara sa mbokk rek ci yàlla li ci yonent bi wax dafa bëri lool ay xadis yu bëri daf yoroon am na benn xadis rek boo xam ne nee benn nit jóg na dem di ziyaara ji bokkam am ku ko ci yoon wi na foo jëm mun ko ci dëkk bii loo fi uti mun na ko dama fi ziyaara ji sama mbokk moo fi am ngir yàlla mun na ko am benn soxla boo fay defari na ko defit dama rek pour ziyaara ji moom yàlla mu feeñu ko ne ko man malaaka la yàlla moom yónni ci yow ne ma wax la ne baal na la ci tànk yi nga jóg jëm sa mbokk mi baal na la say bàkkaar lépp te bàyyi daf daan wax ne mbaam yàlla kenn utiwut lu ko ci beneen xadis mu ne kii ziyaara ji ba mu togee ba mu tànkam ci dëx buntu néegam rek lañ ko nangul ay jëfam fajal koy ajoom baal ko ay bakkaaram xadis yu baree bari ñëw na ci xadisul si ñëw na yàlla di wax ne wajabat mahabbati li mutahabina fii wal mutazawirina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabazirina fiya ñeent yooyu yàlla tudd yëpp di ziyaara ji ngir yàlla dana diri seen dañ diri seen semaan ci kooku ndax mbëggeel ngir yàlla moo tax mu jóg di ziyaara ji dem itam jëkkaale sëriñam moo tax mu jóg def na itam yëngatu boo xam ne lépp joxe alal la te lépp yàlla rek moo tax kon mbëggeel yàlla dañ koy daal di am rek ci xadis boobu ni mu tëddee noonu te waaye mu ne yàlla bu la buggee nekk di yow wala bu la buggee sax def la ngay waliyu kon ziyaara njëriñam bëri na lool ñu jógee ci loolu rek dugg ci mawlidu rasul sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo goreel doomu aadama yépp moo tax nit nekk nit ndax bu njëkk njëkk yonent bi di ñëw nit ñi jaami leneen lañ lu may yàlla waaye ci feeñam moom yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci lañ nekkee itam jaami yàlla dëgg-dëgg lañ jotee seen bopp xam ne nit warta sëggal kenn wala mooy rukool kenn ku ma kooku moom lañ doon gàmmool emuñ ci gàmmu waaye ba bis si ngénte bi jotee itam ñu eesalaat loolu moo ko defal bàyyi tawfiq la boo xam ne yàlla moo ko defal ndax gàmmu def gàmmu def gàmmuwaat lu diis la waaye moom fexe na ba en ko en ko taalibe yi ñoom bi mu juddoo danañ fàttaliku juddoom mu yonent bi sallallahu alayhi wa danañ fàttaliku xarbaax yi ci xew yépp danañ fàttaliku itam ne may gi yàlla mayoon doomu aadama yi ki koy indi mu ngi nii bu ngente li ñëwee ba tey ñu tuddee ko Muhammad te turu arab mosul koo dégg waye Mam abdul muttalib mi nga xamne ne moo biram mbiram gannaaw bu bayam làqoo fim taxaw ci kaaba gi di ñaanal aminatu yalla pour yalla may ko mat bu oyof mo seen ci jamm fi la gis kaaba gi jeng jëm jor jeng jëm càmmooy di fecc nan wulida muhammadun wa rabbil bayt nan jur nañu yalla muhammad te gëñ nañ ci borom nek ñu ko muhammad abdul muttalib loj ay gelem yu bare bari rey ay gàtt yu bari ci màkk wax ne buñ ko aaye kenn ñëpp a ci am terale ko yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne sët la ci moom kon loolu rek waroon naa doy pour ne ñii di jéem a bidaal gàmmu naan gàmmu bidaal la waroon nañoo xam ne du bidaal Abdul Mutalib ba muy def loolu lislaam sax ñëwut bay xam ne ne kii ku ñu war a teral la ku ñu war a teral bi si juddoom la ku ñu war a teral itam bi si ngeen dem la waaye def na ko ci tawféex boo xam ne yàlla moo ko defal mu Abdul Talib ndax itam mën na koo am ndax moom mooy maam yi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jur bàyyi bi ko jur bàyyi nag daf daan wax wax bu gàtt ci képp koo xam ne da bëgg bi daal gàmm def ne yonentu bi sa alayhi wa sallam yàlla wax na ko ci alquran ne ko wa kullan naqussu alayka min anba'i sa ma nusabbitu bihi fu'adak dana la nettali xibaar yi yonent yi lay jitu won ndax lolu dana dëgëral sa xol ci gam yàlla wala ñu dëgëralee ci sa xol ci gam yàlla mu ne su fekke ne yonent bi ñu nettali ko xibaar yi yonent yi ko jitu won man na dëgëral xol ci gam yàlla rawati na ñun kon su ñu nettalee xibaar yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu loolu mën suñu xol aaya jooju rek mu ne doyna na dalil pour gam ñu seetlu ci ngëneel yu bari itam yoo xam ne mu xaqoon yi ñi nga xam ne lu leer lañ xam ci seen borom digganteeg seen borom nattu nañ ko gis ko mooy ne képp ko def ci at am nga kóllëre ci at moomu ba bëggaama di del saat loolu amul lenn lu ko gën a kawe bi ci boppam sallallahu alayhi toog na bis muy altine mu rey gàtt ne tey mooy suma bi si juddu ñu altine jooju foofu itam dalil la pour ne gàmmu dara nekku ci ndax bàyyi mu ne nit duñ ko ngénte ñaar yoon kon daf doon fàttaliku bi si juddoom rek te noonu ñun tam mën lañ koy fàttalikoo muy gàmmu yi ñuy def muy gàmmuwaat biñ ci teg waaye lépp ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul te su ko nangoo itam yàlla na ko def ci misaani xasanaati Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu loolu la ko yàlla di defal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila qiyaami saa waxaat ne man sanna sunnatan sayyiatan falahu wisruha wa wisru man amila biha ila qiyaami saa mu ne képp ku sunnaal sunna su rafet da nga am yool bi da nga am yool yi képp ku la ci roy sa gannaaw ba ba bés ba ci di taxawee mu ne képp ku def sunna bu ñaaw itam da nga am bakkaar ba da nga am bakkaar yi képp ku la ci roy ba ba ay imaara di taxawee kon kay ñu feetu juddu yonent bi du bida fekkoon nañu dañ koo sos sax te yonent bi dem na ba am ñetti téeméeri at kenn waxul waxi gàmm gannaaw ñetti téeméeri at ci la xeetu dajee gis ni ci nga xam ne lépp lu ñu nekk ci yiw ci moom la jógee mooy suñu wali yu neexmati ci anam yépp ci zaahir ak ci baatin war nañoo dundal guddi ki nga xam ne ci la ñëwoon ci àddina waaye nag teg ci dundal guddi ko ba pare teg ci dundal itam guddi bi nga xam ne mooy ngenteel yonente yàlla Muhammad sallallahu wa sallam te xadis bi nga xam ne Seydina Omar moo ko riwaaye yonent bi wax ne innama al amalu bi niyat wa innama li kulli mriin ma nawa man kaanat hijratuhu ila wa rasulihi fa hijratuhu ila wa rasulihi man kaanat hijratuhu ila dunyan aw imraatin yankixuha fa hijratuhu ila ma hajar ilay Buxaari moo ko solo jële ci Seydina Umar ibn mu ne yonent bi wax na ne jëf yi ci ayna yi la takku nit ku nekk itam li ngay ayna moom ngay am mu ne képp koo xam ne danga gàddaay jëm ci yàlla ak yonentam sa gàddaay dana tàbbi jëm ci yàlla ak yonentam képp koo xam ne da ngaa gàddaay ci jigéen wala jëm ci leneen lu man di doon sa gàddaay itam ci loolu rek lay dem kon éene bi nga xam ne moom lañu am ci gàmmu ak ci ziyaara ak ci gàmmuwaat lépp ay éene yu sell la yàlla jëflante ak ñu ci éene yooyu yal yàlla boole wattu ci islaam wattuñ ci gëm yàlla yàlla teg ci siraatul mustaqim ñëpp ñu ci yëngatu yal na yàlla nangul leen ñu ziara si woon ak ña gàmmu si woon ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel dina ñaanal yàlla yàlla may leen ñu teewaat ko déwén teewaat ko itam at yu bëri gannaaw déwén mën na loolu yàlla na ko def te ku ci nekk bu lay déwén yàlla nga yëg yokkute ci sa bopp wallaahi yàlla nga yëg fajug aajo ci sa bopp yàlla mën na loolu yàlla na ko def ñu sant yàlla bu baax a baax di gërëm alhamdulillah mu nekkoon mbokk internet fay di tidiane yi lu ñu jëloon ci al akbar imam cheikh ahmad tidiane ali cissé ñu ñaan ko yàlla ñun ñëpp képp ko xam ne yaa ngi seetaan vidéo foo mënta nekk ci àddina bi nga ñaan ko yàlla yàlla yàlla guddal fanam te may ko wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان